waa tout d'abord damay rappeler sama présence fii donc euh, dama bokk ci li nga xamante ni mooy kuréelu plateforme 4 bi nga xamante ni dafa regrouper ay entités regrouper euh, parti politique regrouper ay personnalités euh, donc regrouper aussi le syndicat regrouper aussi surtout la société civile donc ñoom ñoo créer li nga xamante ni moom mooy plateforme boobu tey jii bu ñuy wax situation dëkk bi donc mën naa ci waxee xëy na personnellement comme mën naa ci waxee ci turu li nga xamante ni moom mooy plateforme bi ma teg fii tey donc je dirais plutôt que ni tey li nga xamante ni dafa xew ci dëkk bi ñu koy constater muy violence de passage balaa lool sax maa ngi euh, jaale ñi nga xamante ni am nañ ci ay perce de vie humaine ñi nga xam dañ ci blessé di jaale waale aussi waa Ngor parce que wax dëgg yàlla Sénégal la ñu wax te gis nañu tension yi xew temps yi nekk na yoo xamante ni vraiment ploré nekk na situation yoo xamante ne xamewuñu ko woon ci Sénégal xëy na à l'époque mën nañu wax ni tension daañu am mais je dirais plutôt verbal quand je dis verbal dama koy yóbbu ci li nga xamante ne moom mooy démocratie moom mooy la liberté d'expression donc bu mu njëkk xëy na peut-être amoon nañu liberté d'expression boo xam daan nañu permettre tey ñuy waxee ba xëy na peut-être tension entre deux personnes mën na am mais lii di xew tey ci diggante Adji Sarr ak euh, li nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko muy ñaari nit ñoo xamante ne ay citoyens sénégalais lañu donc am loo xamante ne dañ ko tuuma dafa am ci ñoom ñaar tey ba ñu taxaw ñu wër leen àtte ci yoon Sonko tey bu taxawee mën na am droit wu ni tey du ma répondre procès donc je vois pas en quoi tey armée euh, astaghfirullah euh, en quoi mën nañu jël tey li nga xamante ne moom mooy suñu force de l'ordre yi yóbbu leen fi nga xamante ne mooy Ziguinchor ba xale yi gis ni loolu genre menace la si ñoom ba ñu révolté wu donc su fekkee dañu bëgg jël ni xale yi li ñuy révolté wu Ousmane Sonko la donc je parle pas de parce que dama dama dama dama bokk ci bokkuma ci Pastef parce que laa bokk mu boole ma ci li nga xamante ne moom mooy F24 mais damay wax lekk li nga xamante ne moom la ñuy gis manière générale li gis ci dëkk bi donc tey bu rev su manifestation yooyu amoo bu il faut tey comme ni nga xamante ni moom la honorable waxee buñ ko jël waxee ko comme si nit kooku moom moo génne moo ni manifester leen wala moo génn moo ni xale yi ñoo am seen engagement wu bopp xale yi ñoo am seen yaay bopp xëy na mu jaral leen ñu génn dem euh, li nga xamante ne mooy def ay manifestation xëy na peut-être mën a gisee mais foofu ñun F24 tey dafa am loo xamante ni dafa am lu ñu ci boole mooy tey ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko partie signataire la si li nga xamante ni moom mooy F24. te dafa am point yoo xamante ni daf ñu tënk muy képp ku nga xamante ni danga nekk di wut kandidaa wala nga bëgg bokk si candidat euh, élection présidentielle yi ñu lay tegal ay ndigg sërëx pour jëm la daan ñun tey dañuy taxaw pour xeex loolu donc tey euh, président Sonko tey dafa am soutien nga xamante ne moom mooy F24 ci par euh, par rapport ak situation actuelle bi nga xamante ne mi ngi koy dund par rapport ak ni ñu jëlee sur procès yoo xamante ni tegleel ko ko donc te xam ni nit kase la aussi déjà ñu tegleel ko ko bu ko euh, éliminer donc ci li nga xamante ni moom mooy euh, liste ñi nga xamante ni buur nañu bokk ci candidature présidentielle bu représenter te moom mooy seen parti kon lii nga xamante ne mooy actuellement en train de se passer kenn rek moo ci mën a trouver solution de la république. lan ngeen di xaar ci moom. li ñuy xaar ci président de la république tey bu dëkk bi baaxee moom la bu dëkk bi yëngoo mën nañu wax moom la parce que mën na calmer parce que n'oublions pas que il a dit ni am na dossier yoo xamante ni su naree taal di réew dama ciy teg sama loxo sama conc ça veut dire du jug yenn genre dossier yi tegu ci sax baaraam te dañuy xaar ci moom comme que c'est le chef de l'État déjà ñu ngi xaar. li ngi am depuis de euh, l'affaire de Adji Sarr jusqu'à présent ya y a eu 17 morts de personnes donc loolu nekk na lu nga xam dañ koy déplorer des situation yoo xamante ni au Sénégal daawuñu ko gis tey bu ñu demee ba di ko gis il est temps que le président de la république xool nan la war a mën a defee parce que c' est le père de la nation quoi qu'on puisse dire actuellement donc c' est à lui maintenant de prendre certaines décisions pour éviter de telles éventualités pour éviter de tels incidents parce que la perte des vies humaines et de surcroît des jeunes donc qui est une perte chère parce que ay xale lañu ay ndaw lañu génn manifester ñëw ñu rey leen si lu nga xamante ni peut-être je dirais pas que ni damay taxaw ni Ousmane Sonko waru woon def lii wala Adji Sarr waru woon def nii parce que Adji am na droit dem porter plainte Ousmane Sonko comme Ousmane Sonko am na droit ne répondre ma kon tey bu ñu ñu woon créer tension bi yëpp jusqu'à aller euh, jusqu'à tey ñu naan euh, justice bi euh, ñu naan tey du nu jëli Ousmane Sonko parce que xëy na peut-être yoon may na ko li ko ci war a fekk mënoon nañu éviter loolu yëpp